ma gisee ni en 2011 ñu ci bëri ci ñun fii dem nañu jaamaarloo pour le respect de la constitution sénégalaise pour que Abdoulaye Wade mu respecte sénégalais yi ci ëpp ci ñun à travers suñuy visage yu nekk fii on s'est battu pour dire non à une troisième candidature de Abdoulaye Wade et que dix ans après qu'on soit là à dire non à une candidature de Macky Sall j'ai malo au cœur mais en même temps bu ma gisee ñi fi nekk tey bu ma gisee ceux qui étaient déterminés à l'époque ñu nekk fii bu ma gisee ñi fi nekk tey muy mbooloo avec ce drapeau national ça donne de l'espoir et ça me rappelle encore toute cette ferveur de 2011 gaa ñi jaa ngeen jëf pour terminer dafa am lenn lu may wax doyen Alakan wax na ko fi am na ay images yu ñu circuler sur internet des jeunes yu nekkoon ci seen balcon ñu bind non à une troisième candidature ñu jàpp leen police dugal leen ci oto ñu yóbbu leen commissariat gaa ñi li ma leen bëggoon ñaan mooy doyen Alla Kane wax na ko fii ci dama ciy taxaw ku ci nekk bu ñibbee na nga jël carton bind ci non à une troisième candidature nga taf ko sa balcon jaayeen jëf chauffeuru taxi yi fàttewu ma leen comme ni ko doyen Alla Kane waxee képp ku ko mën defal sa carton comme ñii non à une troisième candidature nga taf ko sa buntu kër nga taf ko fépp fi nga mën maa ngi terminé di jéggalu waa ATE amicale des travailleurs de l'électricité bi nga xamante ni ñoom ñoo doon marche eh, euh, nu mu tuddee ci Kaolack ba ñu jàpp ci kilifa waroon nañ jël kàddu mais ils n'ont pas di leen jaajëfal ci seen xeex bi di jox kàddu gi mon ami et mon frère Barthélémy Diaz di leen jaajëfal yéen ñëpp tàccu leen seen bopp. asalaamaaleykum mbokk yi. Asalaamaaleykum la jeunesse sénégalaise. Il y a dix ans de cela, on s'était mobilisé pour la démocratie sénégalaise. Il y dix ans de cela dañu jot a mobiliser wu taxaw ne troisième mandat dañ ko fiy tere. Il y a dix ans de cela dañu taxaw mobiliser wu ñu ne Sénégal du lu kenn. Dix ans plus tard nous sommes aujourd'hui ici. pour le même combat. Mais il y a dix ans, il y a eu 17 morts dañ koy fàtte rek 17 morts ngeen may ma nag lim leen il y a eu Mamadou Sy il y a eu le policier Fodé Ndiaye il y a eu Ousseynou Seck Bana Ndiaye Malick Ba Mamadou Diop Abdoulaye Wade Yëngu Alaaji Konaté Tekouba Sidibé Dominique Lopi Alioune Badara Diop Mamadou Bakhoum Aboubacry Dia Yatma Fall Mara Diagne Mamadou Ndiaye El Hadji Thiam ngeen jëggal ma nag ak beneen nervi bu ñu doon woowee njàgg ju fële ci buntu mairie bi waaw kon nag comme Macky Sall nee na day tagaat nervi yi ci yoon gi ñun tamit lii di suñu warugar xam nañ ko ba mu jot rek man moom duma waxantu parce que am naa yaakaar bokkuma ci ñuy nervi yi di ciblé man suma yaakaar bu gàtt la waaw yéen tamit bu nangu ngeen bokk tamit ci ñuy nervi yi di ciblé te xam ngeen fu may waxee dama ne képp kuy woyu woyulu ci dëkk bi ngeen won ko woyu bandi mooy bàyyi waaw parce que ñun wax ci duñ ko raay Sénégal moo ñu ko jaral président de la bi buy wuti ay nervi loolu dafa ñaaw ci démocratie wante nag dëgg la naam il fait dix wante ci démocratie la ñu nekk dinañ ñu may au moins deux petites minutes ñu daaneel kàddu gi dama ne deux mille vingt-deux ñaari élection moo nar a am bu ci njëkk mooy local waaw kooku moom dama nekk candidat ci maire de Dakar lu ngeen ci xalaat yéen wax leen ah kon nag wax ji jeex na nam ma ngeen ma ci mairie de Dakar nam ma ngeen ma gis ci mairie de Dakar su ci yàlla àndee incha dina nekk parce que ñaan naa yàlla bañ a sori palais bi parce que waa ji foog ma koy bàyyi xel. dama ne deux mille vingt deux dañuy def premier tour élection présidentielle ak deuxième tour élection présidentielle suñu mag ji Abdourahmane Diouf wax na lu am solo nee na Sénégal amul premier ministre nee ne suñ ci eggee ñu am majorité cohabitation bi du muy demee kooku ce n'est pas notre problème c'est le problème de Macky Sall parce que premier tour mooy local te dinañ ko faj deuxième tour dinañ ko yóbbu ardo élection présidentielle bu 2024 c'est une formalité wax ji day jeex fii ci 2022 fu may daanalee nag mbokk yi fu may daanalee waxoon naa leen place de l'obélisque ma ne leen xeex bi xeex bi c'est au mois de septembre te man du duma waxantu Macky mu ngi may dégg na leen Macky wax lu tax mu jël général bu naroon dem retraite septembre lu ko dese woon mooy juillet août ak septembre mu ne da koy jëlee indi fi keneen na ngeen waajal dama ne xeex bi ala kulli al day am te bii yoon xeex bi atte du am dama ne atte du am atte du am ne atte du am kon nag mbokk yi est-ce que d'accord ngeen que premier tour 2022 wax leen waaw wala déet est-ce que ngeen deuxième tour 2022 waaw wala déet d'accord ngeen xeex septembre kon nag pincez tous vos koras